pétrole waaye li nga mën a jëlee ci pétrochimie à partir du pétrole ak du gaz nga xam ne mën nga ci defee urée loolu moo ëpp valeur te ngay defee ay industrie te potentiel baa ngi fii ci Thiès ñu ne nag la jëm ci les industries agricoles et l'agro-industrie potentiel bi yëpp mi ngi ci cees lii moo nekk ci vision 2050 bi ñu leen présenté keroog waaye ñu faram fàcce ko ci plan d'action gouvernementale bu juróomi at yi 2029 faram-fàcce ko ci li ñu tuddee master plan 2034 waaye la ci des doon ay échéance de dix ans dix ans dix ans lii nag lu ñuy liggéey la ci anam goo xam ne faw rek population bi comprendre xam fi ñu bëgg a jëm ñu ànd ak ñun seen tànk suñu tànk parce que dafa am lu war a jeex ci réew mi fal nit ba pare raxas si dem toog ne sama yoon new ci na ma réglé lu ma lekk ak lu ma naan waaye sama yoon new ci déedéet réew dafa am nu muy doxee dama wax léegi problème financement réew fan lay jëlee lu koy doxal li ñu dañ naan état état état état président Bassirou Diomaye Faye yorul lu mu mën a dundalee fukk ci yéen sax waxuma laa lu mu gérer problème yëpp waaye état dafa am fu muy jëlee ay revenu am bi ci njëkk mooy lempo l'impôt boobu nag nañ ci def réforme nañ ci def réforme ci fan yii ndax dama wax ni lempo gi gën ci lempo gi mooy bi nga xam ne la ñuy fayeeku yemamaay na waaye ñëpp daje fay ko moo gën nga jël ay taux yu kawe te ñenn rek a koy fay waaye bi ci njëkk mooy lempo réew mi la gën a mën a fay lempo moo la ëpp capacité ñaareel bi mooy li nga xam ne mooy li la yàlla wërsëgale ci ressource naturel nga gérer ko bu baax ñetteel bi waroon doon loolu sax du levier de financement ci boppam waaye mën na jàppale économie mooy nga am sa mone boo mën a gérer mu méngoo ak sa économie loolu ci li ñuy financer réew la. ñetteel bi mooy li nga mën a jëlee ci contribution yi jóge ci les ressources longues comme li nekk ci IPRES wala caisse sécurité sociale yu demee noonu ñu utiliser ko wala li ngay ubbi te temps yi nañ ko def nag mooy li ngay ubbi ne Sénégalais yi ah man de bëgg naa defar tel infrastructure bëgguma ko lebe ci biti waaye damay émettre li ñuy wax patriot bond yéen a ngi dégg ay euro bond ñun bëgguñu koo jële ji Europe patriote bond laa bëgg bëgg naa 500 milliards yow waa diaspora yow mi ne Sénégal yow ak yow ak yow léeg-léeg mu ne infrastructure yoo xam ne dangay dugal sa xaalis mu jur ñu delloo la sa xaalis kon lii bokk na ci li ñuy financer économie bor doog a ñëw nag dem di lebi ci feneen fu bokkul ak foofu waaye yi ma njëkk a tënk yëpp kan moo koy doxal citoyen bi moo koy doxal am na ku ne léegi nañu créer emploi xam nga emploi lu koy créer état nu mu bëgg bëgg jël dafa am fu mu yem tey masse salariale bi li ñuy fay ci salaire état di ko fay dépassé na cinquante pour cent ci budget bi kon lan moo des pour nga tabax ay école nga tabax ay industrie premier vocation état du employé waaye état day créer les condition pour ay entreprise juddu entreprise yooyu ñooy créer des emplois ci loolu la jublu kon fi ñu bëgg jëm fi ñu bëgg a jëm leer na naññ ci suñu bopp te dinañ fa yegg bu soobee yàlla waaye on a besoin de chacun et de chacune d'entre vous te mu ngi commencé ngeen jox ñu majorité absolue écrasante à l'Assemblée nationale <coughs> lii nag li tax citoyens yi citoyens Sénégal bañul bañul contribuer li koy koy firndeel benn bokk na ci mooy tey Pastef saa yu wootee ñu wuyu ko keroog Dakar Dakar Arena benn bës rek cinq cent vingt cinq millions lañu fa levé kon citoyens yi bañuñu joxe ku fi sa daayira woo joxe ku fi sa sëriñ xewle nga joxe ku fi euh, sa sa région wala sa sa sa village xewle nga joxe kon bañu ñu joxe li tax ñu bañ a joxe su dee impôt parce que citoyen bi gëm na ni li may joxe la ci ëpp ay politiciens ñoo koy damm seen poos loolu tax citoyen yi sawaruñu ci joxe moo tax ma bëgg leen assurer quelque chose ma waatal leen ko fii billaahi wallaahi ma waatal leen ko fii xam ngeen lu ma bëgg ngeen xam xanaa xanaa ñun lu ñu xamul ñun lu ñu xamul man lu ma yéegul chaque jour ma wax ko du menace nag ministre ak directeur général ak directeur ak chef d'agence ak ku ma yéeg ni jël nga fukki dërëm boo moomut non seulement doo yendu foofu waaye di nga ko layoog yoon te lii ma wax nii maa ci gën a tuuti dangar ndax xam naa fi mu toll président Bassirou Diomaye Faye man xam naa ko réew li koy defar mooy alalu mbooloo nañ ko bàyyi mu dellu ci mbooloo mi kenn ku ne dañ lay fay na la doy nga yem ci loolu waaye kenn ku ne ku ñu fal foog nga ni da nga war a nekk millionaire wala milliardaire ku bëgg loolu da ngay dem ubbi usine dem liggéey loolu yàlla wërsëg nga xam ni lii la fonction publique kenn du ci nekk milliard milliardaire fonction publique président de la république ne leen million millions 800 lay fayeeku man 4 millions 300 lay fayeeku naka la ñuy doonee ay milliardaire kon ku ñëw taxaw yor ay mallette li xew ci réew mi maar dañoo sàcc sàcc sàcc sàcc ba amatul ñuy sàcc ngeen jéggal ma ci kàddu gi lépp lañu jaay lépp lépp. moo wax leen lu gën a gàtt est-ce que xam ngeen ni prison Rebeuss bee est xam ngeen ni jaay nañ ko prison Rebeuss te xam ngeen luñ ko jaayee huit milliards prison Rebeuss plus d'un plus hectare à Dakar nga xam ne tout gën saa gàtt mën na jar quarante milliards ñun bu ñu egsee ñoo ko bloqué ne annulé nañ ko ñoo ko annulé ma leen ni loolu loolu lu gàtt la de loolu xam nga Amadou Ba léegi wax na mbuurkat mais lu ne la ñu jaay gis ngeen prison Cap Manuel bi nga xam ne man fa laa woon bi ñu génnee ba la jox ñu nguur gi bañ ma andile kayit yi ma xool ndekete jaayoon nañu prison Cap Manuel ba toog man xam naa dañ ma naroon jaayaale gars yi yóbbaale moo tax moo tax gis ngeen wax ji bëri na gis ngeen wax ji bëri na wax ji bëri na waaye xam ngeen lu indi wax ji mooy tiitaange ak ragal parce que kenn ku ne ci ñoom xam na li mu def te ñu bëri foog nañu nag bu ñeen bu ñu amoon mandat ba dem assemblée nationale raw nañu déedéet ndax bu ngeen ñu joxee li ngeen ñuy jox muy majorité absolue écrasante ku fi luubaloon te ñëw nekk député ci benn fan la ñuy teggi sa sa immunité parlementaire nga dem layoo ko loolu yomb nañu waaye yooxu beeg daw beeg yëpp ci pour assemblée nationale mooy jàpp nañ ni mën na leen permettre ñu dem làqu ji mbokk yi alalu réew mi loolu bokk na ci li l'un des plus grands combats yoo xam ne dañ ko war a régler am na ñoo xam ne seen benn compte rek seen benn compte seen benn compte rek fekk nañ fa lu ëpp mille milliards seen benn compte rek foog ngeen ni loolu jaadu na ci réew mi moo tax defuñu ko parce que dañoo soxor wala dañoo bëgg a lor nit waaye est-ce que d'accord ngeen loolu yëpp ñu bàyyi ko mu romb moo tax alal gi faw mu dellu si si réew mi waaye bu dellu see ba noppi kenn ku ne na xam ni dootuñu nangu ñuy dénk nit responsabilité muy randal alal réew mi moo tax pôle bii nga xam ne mooy poolu Thiès gannaaw bi ma leen waxee filière yi ñu ci bëgg a développé potentiel bi fi am lañ ca teg mooy fenn fu ne ci dëkku Thiès yi am nañu destination buñ ko bëgg a yóbbul Thiès ci boppam ak Mbour bëgg nañu di doon des métropoles d'équilibre parce que il faut des de très grandes villes ndakaar déjà métropole la waaye Dakar suñ ko bëggee désengorger il faut ñu am des métropoles d'équilibre mooy dëkk yoo xam ne déjà am nañu dayoo boo leen yokkee tuuti rek mën nañu doon à l'image d'une capitale moyenne Thiès mën na ko ne Mbour mën na ko ne Tivaouane bëgg nañu mu doon une métropole régionale mooy à à la dimension de la région Tivaouane doon une métropole pas la à la dimension nationale Pout Kayar Mexe Xombol ak Caajaay la ñu bëgg a liggéey ci ñoom mooy ñu doon des villes secondaires Pout ak Pire Pire gu rëy la ñu bëgg a ci ñoom mooy ñu doon des centre de service agricole mooy bu ñu béyee ci biir Thiès mën ko indi foofu gannaaw transformation mu doon de des des des pôles d'éclosion pour ñu distribuer à travers tout le Sénégal Kayar Taïba Mboro ak sa njara bëgg nañu doon des centres industriels Kayar Taïba ak Mboro Popenguine Taïba Niassène ak Pointe Sarène dinañ ko développe ci tourisme tourisme balnéaire waaye ak tourisme religieux également noonu la amee ci dëkk yi ma cité ñuy dëkk diine Mékhé centre artisanal d'excellence spécialisé dans la cordonnerie loolu moom lu am na ba noppi waaye dañu bëgg mu doon un centre d'excellence ndax suñu cordonniers yi kenn gënu leen ay waaye il faut ñu may jàppale leen ci ay machines yu moderne ba lu waay def feneen ñu koy importer ñu mun koo def fii di ko exporter. Pekes ak Touba ak sama dëkk Xombal ak Ngunjaan bëgg nañu ñu doon des centre commerciaux structurants xam nga loolu amoon na ci jamono tubaab. bu bëri dafa dooroon dangay dem fekk fa ay Périssac ak ñu mel noonu c'était des centres commerciaux noonu lañ ko bëggee foofu joile Fadiouth centre alio industriel et touristique jas pôle aéroportuaire Ndayane pole portuaire et enfin Dagoxolpa pôle urbain lii mooy vision moom la ñu andi teg ko te kenn ku mënul wax ni ci ñi ñu jiitu woon mës nañu andi vision bu leeree nii ñun ñooy ànd liggéey ko te mi ngi jaar par une victoire écrasante ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen jox daj di daje une prochaine fois asalaamaaleykum wa rahmatullah